ab Abdou Faye démb janoo nañu ak tas ko du xabaar yi waaye nag ñoom dañoo dàq lii nga xamante ni ñoo ngi koy wax ne Abdou Faye dafa xaru ak dafa bëggoon a xaro yéenekaay gi ñu xëy fekk fa Alioune Tine daan nay dànkaafoo nee na nag jamono ji dàqul benn yoon a jël xeex bi yóbbu ko nag ci juridiction internationale yi maanaam ca bitim réew yéenekaay gi de Le Quotidien nee na en tout cas Abdou mi nga xam ne moo ñàkk bakkanam ci commissariat central bu Ndakaaru te ñu wax ne dafa xaru jamono ji commentaire yi nee na cobay maanaam commentaire yi bëri na ci loola yéenekaay gi de La Témoin ñu xëy fekk fa na lépp loo xam ne jëm na ci wàllum mbirum xaro li nga xam ne jamono ji maanaam moom lay sàkko maanaam li mu yaram mbir mi ñu daal koy enquêté ba mu leer naññi ndax doomam ji musu dugg pression musu koo xamee lu bon yéene kaay gi di réew mi quotidien moom tim xëy di ñu xibaar naan am na ñetti garde pénitentiaire yoo xam ne déglu nañu leen a jël nañu leen a yóbbu nañu leen sa kaso ba ndax ñett ñii dañoo jàpp ne bokk nañ si ñu jàppale Baye Modou Fall ba mu rëcc ci kaso bi yéene kaay gi di la sa ñu booloo sunu biir songu Macky Sall yéen kaay gi ñu xëy fekk fa Barthélémy Dias daan nay wax ci tappale yeeg njuuj njaaj yi nga xam ne moom la Macky Sall bëgg a def ci élection locale 2022 yéen kaay gi du l'Observateur ñu xëy fekk fa Cheikh Dieng bu PDS daan nay wax plan yi nga xam ne waa PDS nal nañu ko ci élection locale yi nga xam ne moom la ñu dëgmal wax na tamit xarañteef gi nga xam ne Macky Sall am na ko ci lu jëm ci wàllum fraude yéen kaay gi du Sud Quotidien ak Rewmi jii nag ci àjjuma ji danañu wàcc ci mbedd mi mi ci mbeddi ndakaaru yi ci mbeddi jurbel yi ci mbeddi sigicoor yi la ko waral bokk na ci am na ñoo xam ne dañu leen a tegoon loxo ci manifestation yi nga xam ne moo fi amoon te ba léegi nii gars yi bàyyi leen a yéen kaay gi di 24 heures moom tim xëy ci xëtam mu njëkk ne na mouvement pour la défense de la démocratie tey jii bëgg amal manifestation ci fi nga xam ne mooy place de l'obélisque njiitul Pastef di Ousmane Sonko nee na li nga xam ne mooy xeex bi dafay dog di commencer ndax Macky Sall ci boppam xamul yee la Macky Sall rapport de force la xam te Macky Sall amul benn doomu aadama woo xam ne respecté na la mbooleem li nga xam ne xalif généraux yi waxoon nañu ko Macky amul lenn loo xamante ni jëfe na ko ci ndax ba léegi am na ñoo xam ne ci loxol Macky Sall la ñu nekk mu bàyyi leen si kasu bi jamono jooje nag moom ma ngi wër réew mi maanaam di def ay tournée économique te loolee munuñu ko nangu tey ñu ko nangu ëllëg yéen kaay gi di wal fajire ñu xëy fekk fa Ousmane Sonko nee na xeex bi dëgg-dëgg maanaam dafay doog di commencé yéen kaay gi de laas xëy duñu xibaar naan ñu lu jëm ci wàllum courant bi ngir ñu wàññi ko yàggatul dara danañu ko wàññi ba mu jégg dayoon ndax li nga xam yees bi am ci wàllu woowu yéenekaay gi di exclusif xëy duñu xibaar naan ñu song yi nga xam ne rakk Marème Faye Sall yi ñoo ngi ko song Macky Sall jamono jooju nag première dame bu Sénégal waxu ci dara maanaam dafa noppi dafa ne pata pataara la kaa gi di source ak ak les échos xëy duñu xibaar naan ñu entreprise bi nga xam ne mooy Ecotra a te Abdoulaye Sylla jiite ko ñoom nag niki démb ñoom ak seeni avocat janoon nañu ak tas ko du xabaar yi naqarlu bu baax a baax par parloo gi nga xam ne moo am ci ni ñuy joxe marché public yi ak lu soxal wàllum appel d'offre yi nag ñooy avocat yi société bii di Ecotra SA ak emploi yi ñoom nag dañoo mer ba futu avocat yi yi ñoom li nga xam ne moom la ñu gis daal nee nañu dañuy favoriser entreprise étrangères yi ba pare di écarter di néewal doole entreprise nationale yi te loole nag la nga xam ne moom lay jur maanaam naxasal li nga xam ne mooy secteur privé bi ndax société bii di Ecotra SA investissement bi nga xam ne def na ko toll na ci 77 milliards weeru jot dina fay lu toll ci 500 millions ci ay employés dina employé lu toll si 800 000 personnes ak lu toll si juróomi ci ñoo xam ne ay permanent lañu lu toll ci junni ak juróom-ñetti téeméer ci ay fournisseurs yoo xam ne ña sa ëpp ñëpp ay doomu réewum Sénégal lañ li nga xam ne nag moo gën a merlu ñi nga xam ne ñooy waa Ecotra ak ñi nga xam ne ñoo fay liggéeyee fan yi ñu génn dafa am benn marché boo xam ne société bi daf ko gañe mu toll ci 16 milliards ñu ne ko donget nangu ko jël ko nag jox ko ab société chinoise maître Assane Diomba Ndiaye nee na fii ci Sénégal nee na dañoo bëgg a li nga xam ne mooy ay emploi te emploi soo ko bëggee créer maanaam bu njëkk bi nga xam ne moom nga war a xalaat ñi am liggéey nga xoola ana nan ngay pressé conservé ba ñooñee mën a téye seenub liggéey waaye nii nga xam ne moom la ñuy doxee ak entreprise nationale yi dafay naxasal li nga xam ne moo jëm ci wàllum emploi ci réew mi yéen kaay gi de la témoin xëy dañu xibaar naan ñu njiitu réew mi di président Macky Sall diggante 2012 ak 2019 lu toll ci 400 milliards ci ay investissement yoo xam ne def na ko ci lu jëm ci wàllum infrastructure routière ci diggante Saint-Louis ak Matam yéen kaay gi di xëy li nga xam ne moom la ñuy xaar ci Macky Sall ndax Fouta bëri na ci ay gox yoo xam ne enclavement moo fa am Fouta amul ay infrastructure yu doye ba pare Fuuta askan wa nga xam ne ñoo fa yeewoo bëri na ci ñoo xam ne dañoo sonn ba maara day taale ndax diggante Fuuta ba Bakel la amul benn université amul benn centre de formation professionnelle yéen kaay gi di dépêche xëy duñu xibaar nan ñu état bu Sénégal bëgg naa recruter lu toll si juróom-ñaari junni ci ay militaire yéen kaay gi da la turbina nee na ñetti junni volontaires yi nga xam ne bëgg nañu ko recruter ci police loolee bëri na interrogation yoo xam ne gars yi ñoo ngi si def yéen kaay gi di réew mi quotidien xëy def ab jigéen ñi nga xam ne dañoo sëy ba am